imprimerie Correa conception et réalisation ñu liggéey ci wàllu infographie impression numérique ab bépp liggéeyu imprimerie ak sérigraphie en seeg ay ndaw yu xarañ te set liggéey imprimerie Correa nekk ca Gueule Tapée di 65 angle 62 Dakar seen téléphone 33 823 44 66 seen email contact arobase coréal point sn seen site internet www point coréal point sn Coréal chez nous imprimé étonnant Coréal bokk ci ñi leen di may seen émission Fatawa فتاوى جتاي فتوى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون jotaayu fatwa fii ci rajo Leeral FM 104.6 dañ leen koy dégtal àllarba ju nekk juróom-ñeenti waxtu ci ngoon muy 21 ñu ci ànd ak borom xam-xam bu ñu ràññee ci àdduna sépp di docteur Mouhammad Ahmad Lo hafizahullah alhamdulilah ñu del si kon ànd ak ci sunu jotaay bii di jotaayu alfatawa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun jotaayu fatwa ak docteur Mouhammad Ahmad Lo di tontu ci seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine nooy def ba yónnee sa ñu tontu ko àllarba junne juróom-ñeenti waxtu ci ngoon wooteel ci numéro bii

ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu jaarale ko ci leeral FM Eh, ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di jël dellusiwaat ci suñ jotaayu xam-xam alfatawa eh, tey di bisu àllarba daje ak juróom-ñetti fan ci weeru jumaada al ula wara a daje ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ci 2016 eh, atum jullit di nekk 1437 jazakum allahu xayran cheikhana ci leeral yu am solo yooyu rawatina dinu fàttali euh, weeru jullit ñi nga xam ne ñu bari tey ci ñun dañ koy sàggane waaye loolu am na solo lool ñu xam ne kon tey mooy juróom-ñetti fan ci weeru jumaadul ula jazakumullahu xayran kii dafay laaj nee na moom suy julli naafila dafay sikki sàkka ndax jàng na faatixa wala jàngul faatixa muy laajte luy àtte ci loolu kon Cheikh Abdallah ñu dikk bu soobee la tàmbalee ci laaj bi nga posé ki nga xam ne day sikki sàkka bu nekkee ci biir julli ndax jàng na faatiha wala jàngul faatiha ginnaaw mu ngi ci biir julli gi sëlmalagul wala mu ngi ci ràkkaa bi te noppeegu ci di nattable ci faatiha ji ndax jàng na ko jàng ko da koy jàng rek su fekkee dem na ba am yàqiin na jàng na ko nag su ko defee bu boobaa bu sikki sàkka dikkatee euh, du ko faale day continuer rek julleem noonu waaye daal ginnaaw mi ngi ci biir julli gi daal di nattable ndax moom mi jàng na faatixa wala jàngu ko su boobaa na ko jàng ñaare lool li muy faral di daal mooy kuy julli moom dong wallahu taala alam jazakumullahu xayran kii dafay laaj mu ni bi mu jàppee ba pare dafa tux sigaret ndax loolu day yàq njàppam walla déet ak lan may àtte tux cigarette alhamdulilah Euh, cigarette moom dafa xaraam euh, képp koo xam ne déglu na euh, rapport yi nga xam ne ñooy jóge ci OMS muy mbootaay gi nga xam ne moo yore lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi walla nga déglu seeni xabaar ci li nga xam ne cigarette dana ko faagaagal at mu nekk di ko rey ci ay bakkan ak ñi nga xam ne dana leen teg feebaru cancer ak ñi nga xam ne dana leen yàq seeni dënn ak seeni xëtër loolu ku ko déglu te xam dara ci shariatul islaam duutoo nag table ne lu xaraam la ndax njariñam daanaka su koo xam te lor ji jéggi na dayo su fekkoon ne njariñ la daa fis sax te lor ji ëpp ko bu boobaa sharia da koy xaraamal comme ni mu amee ci sàngara ak ci carte borom bi wax ne wa ismuhuma akbaru min nafihima seen lor moo ëpp seen njariñ loolu moo tax mu xaraamal ko te jamono jii nu nekk bu la neexee mën ngaa wax ne ijmaa la mooy boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne cigarette dafa xaraam amoon nay jamono am na boroomi xam-xam yuy déng déngi di nattable ndax xaraam na wala ba am ñu ciy bind sax waaye nag euh, ci liñ xam conseil scientifique yi gën a magee ci àdduna tey muy majaami fiqh yi yiñ xam moo xam ca Égypte la wala ca Makka la wala ca Jidda euh, liñ gis ci seeni fataawa mooy ñoom dëppoo nañ ci jamono jii ne cigarette moom dafa dafa xaraam kon xaraam bi moom euh, doonut loo xam ne lu ñuy fig sàkk la fi toll nii mu des nag ki tux ndax dana dem julli ji ci ndax da euh, am jàppam day toj wala déet dañuy wax ne déedéet tux bokkul ci yi nga xam ne dañuy toj am jàpp tux bokkul ci yi nga xam ne dañuy toj am jàpp euh, dëgg la lu baaxut la bàkkaar a ngi ci waaye taxul nag jàpp ma firiku mu des lenn rek mooy euh, képp koo xam ne dangaa ngaa xeeñ lu baaxut xet gu naqari goo xam ne day lor doomu aadama yi kooku dañ lay tere nga dugg ci jàkka moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne koo xam ne da ngaa lekk laaj wala soble ba sa gémmiñ xeeñ kooku bu mu dikk ci jàkka ja ndax bu ca dikkee loola dana lor jullit ya dana lor itam malaayika ya te loolu bàkkaar da koy jëlee jàkka des fay ñëw ngir wut si ba waaye di wut si bàkkaar Eh, su fekkee ne loolu la ci soble ak laaj te ñaar yooyu yu dagan lañ waaye xet ga rek tax ñu tere nit ko jàkka ja kon li nga xam ne mooy cigarette nga xam ne dafa boole xet gu naqari xet gu bon boole ko ak xaraam kon loola moom taxul ñuy wax ah, jullit bi nag su jàppee ba noppi jàpp naa ne li gën ci moom mooy mu wattandiku lépp loo xam ne lu xaraam la mu di ko def ñaareel ba lépp loo xam ne su ko jëfandikoo duut mën a dem ca jàkka ja ndax su demee ci jàkka ja lor mbokki jullitam loola itam jullit bi daf koy wattandiku kii dafay laaj nee na dafa am kum ameloon bor waaye waaja faatu njëkk mu koy fay bi mu demee ba bëgg koo fay nag fekk waaja faatu na mu ni kon naka lay def alhamdulilah e, ki yoreel nit xaq joo ne xaqi alal la muy bor wala lu ndénkaan wala lu nuroog moom mu ñëw di ko delloo si boroom ñu ne ko faatu na su boobaa ka doon na alalam moo moom bor ba su fekkee am nañ ndono yu fa nekk daal ay doom lañ wala ay soxna wala ñu ko war a doon ci wàllu sharia ñooña ñooy jël alal ja nañ séddoo alal ji ci wàllu sharia noonu la ñuy séddoo lool yi nga xam ne lu dab dabaatal si la doon bor boo xam ne dafa tagoon bay door a ñëw wala mu doon xàq joo xam ne ju nekkul woon ci loxo ka la bay door a ñëw su fekkee fekk ne miraas aguñ dañ koy jël boole ko ci alal ji ñuy miraas boole ko ci su fekkee miraasoon nañ ba ku ne jël sa wàll itam dañuy miraasaat lool yi ñëw rek nañ ko miraase woon bu jëkk kenn ku nekk jël wàllam su fekkee nag waaja dafa bàyyiwul nag kenn ku koy donn su boobaa mën na koo jël sarxeel ko koo xam ne ku yeyoo lekk sarax la su ko defee yool ba fekki ko fa mu tëdd su fekkee moom ci boppam digganteem ak yàlla xam na ne ku yeyoo lekk sarax la moom ci jëmi boppam ndax faqiir la bu amut lu mu dundalee njabootam su ko lekkee tam li doon yéeney saraxit ba tey dana dellu ca ka nga xam ne mooy borom tuyaaba ja dana ko fekki waaye nag foofu lu mat a ragale yàlla la ndax amut kenn ku lay contrôler ndax yeyoo nga sarax wala yeyoo woo ko kon sooy sikk sàkk daal yeyoo nga comme yeyoo woo ko seetal koo xam ne sikk sàkk woon kii moom amut lu mu dunde nga jox ko ko su yàlla dogalee nag nga bokk ci ñi nattoo loola su boobaa soo ko lekkee amoo ca benn xaarma yàlla wallahu soxna si dafay laaj cheikh bi mu ni ndax dina dagan mu dem ci sëriñub taryàq mu defal ko bindal ko ay téere wala ay saafara yoo xam ne day tax sa yem gën a dëgër euh, ci biir këram ak boroom këram te nee ndax euh, joxe xaalis ci sëriñu taryàq yooyu dina dagan wala déet alhamdulilah li ñu tuddee sëriñub taryàq mooy ab jabar rek eh, njabar ci boppam dafa doom loo xam ne chariatul islam daf ko xaraamal xaraamal bu tar yëmul ci xaraamal ko waaye ñëw ci jabar sax sharia sharia daf ko xaraamal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi na ci ñaari xadis benn bi day wax ne ku jóg dem ci ab jabar ku jóg dem ci ab jabar ab xamkat da nga am ñeent fukki fan yoo xam ne kenn du la nangul sa julli dem ci rek la wax waxul ni defloo nga ko dara waxul sax ne gëm nga la muy wax wala gëmoo ko waaye dem nga fa rek beneen xaddis bi day wax ne képp koo xam ne ñëw nga ci ab jabar mu wax la dara nga gëm ko nee na kooko weddi nga li muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi woon kon na beesalaat lislaamam kon jabar foofu la toll ci ci lislaam jullit bi daf koy wattandiku daf koy sori nit ki su fekkee ne dafa bëgg lu ko jubalee ak borom këram su defaree wàllu jikkoom defar comportement mel na mu war a mel jikkowoo na mu war a jikkoo loolu mooy bëggeelu naturel gi nga xam ne kenn ku nekk moom nga war a wuti eh, askan wi dañoo war a génne ci seen bopp jàpp ne daal eh, lu ñuy wut lu nekk dañ ko war a wute ci ci anamuk njabar ndax suñ ko ci wutewul duñ ko am loolu njuumte lu rëy la te dafay yàq ab société dem na ba ku ki doon liggéey ca bureau am sax jàpp na ne ngir société bi jëm kanam faw mu dellu ci ay sëriñ jii a taxool gestion bu baax jéem ma xool ñi am euh, capace compétence ci mën a yore liggéey boobu ñu jox ko ko ñu jox leen ko ñu yore ko waaye jàpp nañ ne faaw nga dellu ci jabar ki nga xam ne day wut si métier itam te amul benn compétence mën a liggéey jàpp na ne war naa mën a jaar ci ab jabar mu defal ko dara ba bu ñëwee rek ñi daal di koy jël mu daal di toog di liggéey xam nga boo boo jaaree ci yooyu ñu yóbbu la nga toog di liggéey te yow li ngay liggéey mënoo ko kooku mooy mooy tas am réew mooy yàq économie am réew dem na ba sport sax nit ñi sukkandikootuñ ci seen man-manu bopp ak seenu xarañ waaye jàpp nañ ne faaw rek nga dellu ci ay nit ñoo xam ne ñoo lay defaral ay xar ngi foofu pour sa sport door a mën a jëm kanam ala xaal euh, bokk na ci gàllankoor yi nga xam ne ci gàllankoor sunu réew yi ci lañ bokk kon euh, ndaw si ne soxna soos yi ne yëg ne la koy defaral digganteem ak boroom këram te jaare ko ci yoon wa jub mooy na fexe ba doon xaritam jubóog moom euh, di ko defal lu baax di ko wax wax ju baax di teg ab séyam ci yoon lépp loo xam ne lu sharia bëgg ci moom mu di ko def la lépp loo xam ne lu bañ ci moom la mu di ko bàyyi boole ko rafetali jikkoom jàpp naa ne loolu su ko defee kenn du ko ëpp ëpp cër ci digganteem ak borom këram waaye nag takkal la loo xam ne danga ne lii su ma ko takkee moom sama borom kër dana ma bëgg bis bu réeree nga delluwaat fa nga nekkoon bis bu gàllaay ja tojee nga dellu fa mu nekkoon amaana sax faf dara nekku fa ndax waaja da lay ndax lekk sa xaalis boo ko takkee dara du soppiku kon yooyu nañ ko wattandiku ndax lu yàq diine la jazakumullah xayran cheikhana kii dafay wax ni moom dafa yaakaar ne daal euh, dañ ko njabar wala daal li muy def teyu ko ndax nee na day seetaan yu bon di jëfandikoo tamit ay mbir yu bon di tamit ci ay bërëb yoo xam ne daal du bërëb yu sell la mu ni naka lay def ba mën a mucc ci bàkkaar yooyu ak yenn ñaan yoo xam ne yu sax ci lislaam la moom la war a jël di ko jëfandikoo alhamdulilah bu mu jàpp ne loolu ak ak njabar la euh, loolu seytaane la ak kay euh, ak càggante maanaam mm, bu xoolee dana gis yan sabab moo tax loolu dal ko su fekkee lu ko gaar la te dalu ko woon euh, benn xaabaabal ci sànq waxtoom ci seetaan yu baaxut wala ak maas gu muy àndal goo xam ne ñoo ko ko teg wala càggante goo xam ne sàggan na ko ci jaamu yàlla ndax sàggan ci jaamu yàlla ci boppam day ubbi bunt yi seytaan jëm si ci sa kaw bu ñuy wax jaamu yàlla mooy tudd yàlla yi nga xam ne moo war zikkar yi nga xam ne moo jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki war ko di def suba ak ngoon mu war a nekk ci moom kaaraange boole ko ak di jàng alquranul karim mi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala euh, wax na ne wa ida qara'ta alqurana ja'alna baynaka wa bayna alladina laa yuminuuna bil axirati xijaban mastura su fekkee ne yaa ngi jàng alquran danaa def kiiraay lu dox sa diggante ak ñi gëmul yàlla te ñooñu seytaane moo ci jiitu su fekkee nit ki yooyu daf koo sàggane kiiraayam digganteem ak seytaane day bàddiku digganteem ak bakkan ak topp bànneex day daal di bàddiku ndax sàggane jaamu yàlla day bàddi képp kiiraay goo xam ne day tee nit ki dugg ci ay mooy yàlla kon liñ koy dénk mooy loolu bu mu jàpp ne ay jabar ko ko teg ndax nit ñi lu bare bari loolu daf leen di dañuy faral di waxee noonu maanaam dugg ci ay njaaxoom rek daal di ne man dama koo tëyit dañ ma gaar loolu a yomb lool lool comme si ni ko gone yi waxee ku mel noonu na delluwaat xoolaat boppam xool càggantee moom lan moo ko ko teg ginnaaw lii dalu ko woon bu njëkk lan moo doonoon comportement am nan la doon dundee ba jaaroon siraatul mustaqim ak lan moo bees ci ak dundam ba lu mel nii dal ko su ko defee mu jéem a góorgóorlu euh, delluwaat ci jàng alxuraan jéem a soppi ay àndandoo su fekkee dafa am àndandoo yu baaxut jéem a soppi programme am su fekkee ne day sànq waxtoon ci seetaan ay Euh, téléphone di ca xool yu baaxut wala ci internet bi wala yu niroog yooyu mu jéem a soppi waxtoom dellu ci lu baax ji ma dellusiwaat ci alquranul karim te nangu ko jàng su fekkee da ko gàddaayoon fonk si kër yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ak ñaan ya suba ak ngoon bañ koo sàgg sàggani loolu lépp su àndee boole ko àndandoo yu baax ak nangoo farakante jataay yu baax yi nga xam ne lu baax a fay jib muy ci jàkka ya moo xam xutba la ya xutba ya la wala njàngale yi diine yañ fay jàngale ak di déglu ji boromi xam-xam ci seen i jàngale ak fexe ba programme am mu dugal ci sax di déglu seeni i son ak waxtaan ak déglu rajo yu baax yi lu mel ne rajo bii di leeral FM jàpp naa ne yooyu yëpp su ko boolee programme am dana gis ne soppiku na ànd ak loolu lépp nag di ñaan sa borom tabaraka wa taala mu defal la tawfiq di fàttaliku jamono yooyu jàng ihdina siraatal mustaqim nga fàttaliku loolu mooy ñaan yàlla mu gindi la nga jaar ci siraatal mustaqim nga di ko boole ak teewlu te di ko saxal boole ko loo man ci ay naafila nga di ko def di tudd yàlla defe naa ne yooyu yëpp su àndandoo borom bi tabaaraka wa taala dana la sàmm yàlla na na borom bi tabaaraka wa taala sàmm te boole nu ko nun ñëpp. allahu xayran cheikhana kii dafay laaj mu ni bu ñu euh, suulee néew. toog ba ñuy toog ci biir armeel ya di fa jàng alxuraan ak di fa joxe ay euh, ay dog wala ñu fay jàng yaasin wala yeneen yu demee noonu lu ci lislaam wax alhamdulilah niñ ko waxe woon ci tontu laaj ba jàlloon ci jàngal alxuraan ku génn àdduna tontu la du sore ak lii yonent bi sallallahu alayhi wa ci ak dundam nit ñi dañ daan faatu mu di leen denc lépp loo xam ne jàngalewuñ ko ne daana ko def suñ ko ca dool noonu rek loolu ak fétal lay daal di doon lislaam laajul fétal yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ masaan denc nit ki ba àggal dana wax ne istaghfiru li axikum jéggalul leen seen mbokk mi wasalu lahu tasbit fa innahu al aana yusal fa innahu al aana yusal mu ne ñaanal leen yàlla mu dëgëral dëgëral aw laayam ndax kat fii mu toll ni ñu ngi koy laaj laaj yi nga xam ne malaaka yi ñooy wàcc fi moom fa bàmmeelam di ko laaj diine lislaam di ko laaj yonent boobee nga xam ne ca li ñuy xamee ak toppam yàlla tënku woon ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak toppam alxuraanam laaj yooyee ñu koy laaj yooyu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne ñaanal leen ko yàlla dëgëral aw laayam Euh, leneen lu toll ko ci loolu nag euh, doonut loo xam ne moom lu mu dajeel ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk léeg-léeg nag bu dee toogaay bi lañuy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg daana daana waaraate nag maanaam suñ dencee ba noppi euh, mu waaraate mm, wax wax joo xam ne dana wax lu jëm ci mbugalum bàmmeel dana soññee ci góor góorlu ci jaamu yàlla nett li yoo xam ne yu yu mat a dégg la yoo xam ne su ko nit ko jógee dana tax néew boobu yi mu àndoon mu mën koo jàjj ba tax lu bare bari mu mën koo wattandiku loolu euh, denc na ab néew benn yoon boo xam ne toog na ko toogaay bu yàgg sax euh, ci ci di waaraate alayhi salaatu euh, door faa jóge kon waaraate ba moom doonut loo xam ne lu wàññi dara ci béréb booba la jazakumullahu xayran cheikhana kii dafay laaj mu ni koo xam ni bi muy faatu dafa bàyyi lu ëpp ñeenti soxna mu ni kooku naka lañ koy donde ci miraas bi ñan ñooy dond ak ñan ñoo dul dond euh, alhamdulilah lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu miraas ak wàllu sëy ak wàllu tas danaa faral di wax na ci masala yi qadaa la dugg maanaam masala yi atte waaye duggul ci masala yi fatwa euh, su fekkee nag bëgg a xam atte bi rek la noonu waaye nag buñ ko wàccee ci benn kaa te delluwuñ ca kay atte bu fekkee àtte ba rek lañ bëgg a xam moo di chariatul islaam moom ñeenti soxna la wax ne nañu ca yem euh, kon nag lu ko weesu su boobaa su ñuy séddale miraas soxna sa charia euh, wutalu ko ab muy juróomeel ba wala la ëpp juróom euh, doom ja ciy judd itam charia wutalu ko ab cër mu des nag ñaari mbir mooy ndax doom jooji doomi yoon lañ koy tudde wala doom ju doomi yoon alakuli xaal kenn du ko jàppe doomi njaalo jàppuñu itam ne waa ji jurul doom jooju waaye dañuy wax ne fa ko sharia yam loo woon weesu na ko kon nikaax boobu nikaaxu shubha lañ koy tudde ci biir lislaam muy boo xam ne dafa am lënt mu ci nekk euh, beneen mbir ba ca des mooy su doom ya àndandoo woon wax ne nun ñi war a doon suñ àndandoo woon ne nun kat danoo bëgg euh, ku jigéen ki ñu jox ko cër ay doomam itam ñu jox leen ab cër su boobaa chariatul islam du leen ko tere ndax miraas ma seen alal la suñ ca bëgg a dugalu bëggoon a dugal sax ab jàmbur boo xam ne yoonam nekk ci bu leen neexee mën nañ ko caa dugal euh, rawatina koo xam ne ci seen biir kër ci la juddoo wallahu taala jazakumullah xayran cheikhana kii dafay laaj mu ni li ñenn ñi di def mooy tànn yenn saar ni saar yi daal euh, bis sàngam laa koy jàng am ay saar yoo xam ne da leen a tànnal ay bis ndax loolu lu wér la ci diine wala déet selan mu ni saar sàngam moom bi su altine rek laa koy jàng wala saar sàngam bi su talaata rek laa koy jàng ndax wér na ci diine wala déet alhamdulilah loolu saxul ci sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne xam ne da koy tànn jagleel ko bis ne wii saar saaru la wala lii saaru àjjuma la wala lii saaru nàngam la xëy na daal ci julli am nay saar yoo xam ne léeg-léeg ñu taama ko ci ne bu daan julli àjjuma dana di jàng sooratu sajda wala dana jàng suratu euh, aljumaa walla yu mel noonu loolu léeg-léeg nga gis ko ci biir julli waaye nag bu fekkee ne durus la muy jël sa waqfu di jàng dañu bëgg ci alxuraan nga di ko jàng soo tàmbalee ci bopp ba di jàng foo yam nga yem fa bu ëllëgee nga continuer bu jeexee nga tàmbaliwaat loolu mooy liñ taamu ci njàngum alxuraan waaye di jukkat ay saar nag ne wii alxames laa ko def wala wii ajuma lu mel noonu moom saxul ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te li gën ci njàngale yi mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa xayrul hadyi kii moom nee na li muy liggéey day transporter ay mbaam xuux di ko teg dugal ci otoom jële dëkk yóbbu dëkk ñu koy fay nee na ndax liggéey boobu dagan na ci moom ak ndax dagan na mu lekk xaalis ba mu ciy jële alhamdulilah euh, transporter mbaam xuux euh, du dagan ci ab jullit Euh, jullit bi buy liggéey day liggéey loo xam ne lu lu la kenn ku nekk xam na ne araamal mbaam xuux lu jëm ci lekk ko ak euh, jëfandikoo ko ñëw na ci alquranul karim ak leeral ne moom ci boppam dafa sobewu euh, ki nga xam ne dafay def lu mel noonu day mel ne day dimbalante ci loo xam ne dëppoowut ak li sun borom tabaraka wa taala bëgg te loolu dafay indi bàkkaar borom bi nee na wala taawanu ala al ismi wal udwaan bu leen di dimbalante ci lépp loo xam ne day indi bàkkaar wala muy indi ak jalgati eh, mu des nag ki nga xam ne dafa loru situation daal àgg na ci fu nekk wut na fa lum liggéeyee amu ko ba mu des loolu kooku de lenn ci borom xam-xam yi wax nañ ne li ñu tudde daruura mu nécessité dana tax ñi may ko lool yi muy liggéeyee te gisut leneen mu liggéey ci lu yam képp ci loo xam ne dana ko dundal moo ko njabootam te bañ a yem ca loola nag di continuer di wut loo xam ne liggéey bu sell la saa bu ko amee mu daldi bàyyi liggéey boobu mu nekk su fekkee mën na koo xëy bàyyi ko nag ngir yàlla te dem wuti lum liggéeyee doonte day sonn wala day xiif loolu mooy li gën yonent bi sallallahu wa sallam wax na ne man taraka cheyan lillahi awadahu llahu xayran minhu ku bay dara ngir yàlla sunu boroom dana ko wuutalal lu gën loola wallahu taala alam jazakum allahu xayran kii nee na mi ngi Europe dafa téléphoné woon soxnaam ni ko may naa la sabaat waaye nee na nag xelam da cee nekkaat mu war koo jël mu bëgg koo jëlaat naka lay def alhamdulilah euh, kii fase soxnaam ba noppi bëgg caa dellu gannaaw dañuy xool ñaari anam su fekkee bi mu ko fasee ak bi mu bëgg a delluwaate ci moom it daja fekk ni jeexagul maanaam ñetti weer yi matagul su fekkee ay weer lay idde wala gisagul ñetti reegal su fekkee ay reegal lay iddawoo ba laab su fekkee ci diggante boobu la daal nga xam ne ci biir idda la nekk su boobaa su ko bëggee delloosi moom da koy delloosi rek da ko yëgal ne ko kat man la ma la waxoon dellu naa ci gannaaw su ko defee day continuer nekk jabaram waaye ñu konteel ko nag benn passé su fekkee nag fa ko fasee ak fi mu ko bëggee delloosi waate fekk na iddaam jeex su boobaa ndaw sa ab jàmbur la ci moom léegi day ñëw labataat ko nam ko labate woon bu jëkk su fekkee ndaw sa d'accord na moo ki bokkam ñu bëgg ko ko delloo su boobaa mën naa dellusiwaat maanaam mën na koo takkaat jaaraat ak moom mu jaaroon canal ko euh, jël ko mu nekk jabaram su fekkee ndaw sa d'accord walay bokkam d'accord nit su boobaa mu xam ne kon ñàkk na jabar kon daal lay atte ba mooy xool idda ji jeex nag ak idda ji jeexut waaye yooyu ñu xam ne lu ci bare bari lu ëpp ci wàllu passé ak lu ca aju danañ ko di dugal ci masalay fatwa waaye ñu xam ne mbirum àtte la li ci gën mooy lu ci teew ne jëm ñaar ña ko séq ñu bokk dem ci bokk boroom xam-xam mu enquête leen laaj leen ba xam sew-sew yee ci bii rek fan la yëf yi toll door leen a jox àtte ba waaye ci wàllu fatwa daal su fekkee am na lu ñu ci mën a leeral loolu yi ma wax rek loolu laa ci mën a leeral wallahu taala alam kii moom nee na dafa am feebaru salasul bawlu maam saa bu sawee ba pare daal bu génnee day mel ne da am euh, saw muy génnaat ci kanamam mu ni nag mu dégg ñu ni su sawee su nit ki sawee su bañee loolu euh, gaar ko na dox juróom-ñaari paa après mu wisuwaat su ko defee euh, loolu nekk atte bi mu ni ndax loolu lu wér la ci lislaam wala déet alhamdulilah ki nga xam ne dafa am salasul bawl mooy koo xam ne ndoxam daal day tuurata du ko tey euh, kooku li nga xam ne moom la ko lislaam di sant mooy su fekkee salas ba demagul ba àgg ci jéggi dayo euh, mooy su fekkee ne faj na aajoom rek na def lépp lu mu man ba mu wóor ko ne la fa tagoon ci am ndox jeex na ginnaaw tuur na ndox daal gaanuwaay ba noppi na jéem a sonn ci euh, nettuwaaye béréb ba nga xam ne mooy génnukaayu ndox ma ba mu wóor ko ne set na wecc su ko loola wóoree rek mën naa jóg dem waaye ndax day seqi na juróom-ñaari jéego walla lu dul loola kooka moom doonut loo xam ne lu am solo la salasul bawlu nag dafa doon ñaari xaaj benn bi dafay doon boo xam ne bu bu bu digg doomu la beneen bi doon boo xam ne bu jéggi dayoo la bu jéggi dayoo moom mooy boo xam ne dem na ba mënatu la contrôler boppam fu toll ndox maa ngi tuuru kooku dañ koy dénk rek mu jëfandikoo euh, loo xam ne dana ko mën a fàggandiku ba ndox mi du tuuru di àgg ci ay yéreem yu mel ne yi ñuy defal gone yi ci xeeti ay ngemb wala ay couche yoo xam ne dañ koy jëfandikoo mooy tax ndox mi du laal yéreem su ko defee Euh, kooka duutu sonn ci li ñu tudde siiw waaye sax bu waxtu julli jotee rek moom day jàpp daal di dugg ci biir julli ga su fekkoon ne dara ngay génn it loola moom du ko wàññi dara du yàq dara ci ak julleem waaye nag lu mel noonu itam na dem faju ji ndax des koy faj beneen bi ci des nag bu woyof bi nga xam ne léeg-léeg rek day mel ne dara génn na ci moom kooku la ñu wax ne na jéem a góorlu ba seetal bérébam su noppee rek mu dem dugg ci biir julli ji léeg-léeg nag it lii am mooy sikki sàkka jàpp ne daraa ngi génn ci moom te fekk dara génnut kon loolu it faaw ñu bàyyiwaale ko xel ndax léeg-léeg day am ñoo xam ne li ñu yore waswaas la nga xam ne saa buñ fajee aajo ba noppee tam dañuy yëg mel ne dara nga génn ci moom waaye bu fekkoon ne julli na ba noppi bu demee seeti dana gis ne dara tooyul foofa su ko defee su boobaa mu xam ne li li muy yëg ci xelam la nekk waaye dara génnewul ci moom. nee na dafa am soxnaam waaye dafa ñeme njabar ak njabarkat yi day dem ci ñoom. te nee na tamit du wax dëgg te nee na day génn di sol lu ko neex euh, bu ñëwee mu bu ko laajee mu làyyi te ay jikkoom daal nee na gërëmu ko mu ni te am na ñaari doom ndax lislaam may na ko mu toog ak ñaari doom yooyu waxleen seen jikko yaay moytuloo leen ba duñ jeexantalu ci ay jikkoom Euh, alhamdulilah waaw moom day li mu wax ci soxna si tuumaal na ko ay tuuma yoo xam ne yu day doy waar la ci lislaam euh, ndax koo xam ne du wax dëgg loolu musiba la jigéen joo xam ne it saa bu ko neexee génn loolu meneen musiba la ah suy génn it lu ko neex lay sol looloo tam musiba la dem ci ay jabar nag ñëw nekk musiba ma ca gën a rëy kon musiba yu bare bare bari moo daje ci ci soxna soos yi muy laaj nan lay jëflanteeg moom ak ndax day wax ay doomam ñu wattandiku ko ah soxna day moo boroom kër ñooyam leen lu ci nekk des koy tànn door caa dugg lislaam dafa sontaane woon ne eh, jigéen buñ koy tànn ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa na nit ñi dañ koy faral di tànn ngir taar wala alal wala juddu mu ne waaye yow jullit bi fexeel ba tànn ko ngir diine diine mooy loo xam ne moo xam danga tànn góor wala dangaa tànn jigéen su fekkee mooy baas ba loola rëccu lu ci ñëw leneen lu dul loola nag lu mel ni lii ko dal mën naa mën na mën na laa dal euh, foofu du fatwa waaye irshad la maanaam laaye biir ak conseil liñ koy dénk mooy na jéem muñ kem kàttanam te jéem koo laay biir kem kàttanam ngir mu soppi aw doxaliin jéem koo yar yaraat ndax ku mel noonu kat yu mel noonu des di waxtaan moom ci biirum néeg ba sunu borom tabaraka wa taala baaxee ko mu jubbandiku loolu yi mu wax nag ne ndax da koy wax doom yi ndax ñu wattandiku ko loolu moom mënta nekk ay doom mun ñoo wattandiku seen yaay xanaa kay li jéem mooy fexe ba moom doomam yooyu mu jëmbat ci ñoom ab yar boo xam ne yarub lislaam bu baax la boo xam ne daañu mën a xàmmee lu baax ak lu bon su fekkee dem nañ ba xàmmee lu baax ak lu bon suñ ko gisee ci seen yaay danañ xam ne lii lu baax la suñ ci gisee ci moom ab safaan it danañ xam ne lii ab safaan la du doon lu ñuy roy waaye wattandiku leen seen yaay ndax da dul wax dëgg wattandiku leen seen yaay ndax day def nangam ak nangam kooku amul njariñ kon day jéem muñ rek te jéem koo yar kem kàttanam jéem koo jubbanti li feeg mi ngi gis ne loolaa ngi am dara ci njariñ te jàpp naa ne loolu bu ci yàggee te muñ ko bu yàggee borom bi tabaaraka wa taala mën na ko caa defal tawfiq wallahu taala alam jazakumullah xayran cheikhana kii dafay laaj mu ni bind alquran di ko sangoo ak di ko takk luy àtteem ci lislaam alhamdulillah saafara day saafara li nekk ci xol yi ci ay lëndëm lëndëm ci ay bokkaale ci ay mooy yàlla ci ay bànneexi bakkan waaye alxuraan saafara la itam ci yaram yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa daana mocc daana santaane itam ñi mocc di léemoo alxuraan di santaane it ñu koy léemoo léemu ak mocc nag buñ ko waxee mooy jàng ëf daana ko def ci luy metti daana ko def ci feebar daana ko def itam ci ku dem ba dara desewula lu dul tëdd nga tàllal say loxo jàng la jàppandi ci alxuraan jàng la jàppandi ci ñaan ya sax raay ko ci mboolem soo yaram lépp loo xam ne sa loxo jot na ko ca loola foofu nag la ci yonente bi sallallahu alayhi wa yemoon ak nun te xadis boobee ma doon tudd sànq muy xadis bi ñëw ci xutbatul xaaja te yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah xadis boobee yonent bi sallallahu alayhi wa daan ko faral di tudd lool dafa am kàddu gu ci ñëw gu mat di bàyyi xel mooy fa inna xayral hadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi mboolem jàngale yi jàngale bi ci gën mooy jàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa am njàngaleem mooy moo xam ne mooy mosal nit ki ci lépp loo xam ne xeeti mooy yàlla lay doon wala xeeti jàdd yoon moo koy teg ca siraatul mustaqim itam kon nag lépp lu mu jàngalul ci wàllu diine loolu dañ caa war def ndànk jël alxuraan di ko bind di ko raxas di ko def ci am ndox di ko sangoo loolu santaane wuñ ko te njuumte la ci ay anam ndax euh, luy doyadal alxuraan a ngi ci ndax wax dëgg yàlla la ko taxoon a jóg du mooy ñi koy jël di ko sang ci yaramu doomu aadama am na leneen lu ko tax a jóg ñaareel ba fa nga koy sangoo mën na faa fekk sobe wala sobe fekk ko fa loola geneenuk doyadal lay doon ci alxuraan kon soppi objectif a ngi ci waaye soppi itam wala gaaral alxuraan ci loo xam ne lu koy suufeel di ko doyadal mën na caa jóge kon daal nit ko su bëggee mucc ci lépp loo xam ne xeeti njuumte la na fekk la ab yonentam jàngale ci lépp lu jëm ci wàllu diine mu jàpp ca loola te bañ caa dolli dara bu dee lu jëm ci wàllu àdduna nag moom kenn ku nekk mën ngaa góorgóorlu loo mën a def ba gis ne lii soo ko defee àdduna ji gën a baax tam doon lu dagan su boobaa loola mën nga caa nekk waaye wàllu diine moom des ca yem fam ca yemoon rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jërëjëf kii dafay laaj wax yonente bi mu wax sallallahu alayhi wa sallam kullu bidaatin dalaala bépp bidaa ab réer la ak réer la mu ni ndax kull boobu euh, am na lu luñ ciy seppe wala déet wala ndax kulli dafa am ay façon wala am na yuñ ciy génne wala luñ cay dul génne euh, alhamdulilah waaw xadis boobu de yonent bi sallallahu alayhi euh, da ko daan faral di wax lu bare bare bare bari mooy xadis boobu dugg ci xutbatu alxaaja nga xam ne saa bu masaan di ubbi waxtaan woo xam ne waxtaan wu ñor la ci la koy tàmbalee muy inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa alihi wa sallam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 kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana wattandikuloo biddaa muy loo xam ne dañ koo soos ci diine jàppe ko ak jaamu yàlla te bokku ci loolu daana ko wattandiku lu baree baree bari di wax ne bépp biddaa nag ak réer la yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag ci kàllaamaam bu ne kullu bidaatin kullu ci baatu arab mooy lépp mooy biddaa bépp ak réer la moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne kullu boobu amul benn istisna maanaam génnewuñ ci dara amul exception bépp biddaa daal nga xam ne dañ koo sos ci diine di ko jaamu yàlla xamal ne ak réer la moo tax alxaafis ibnu xajar noonu la ko waxee alxaafis ibnu rajab noonu la ko waxee kullu it ci kàllaam ak arab loolu lay firi li fekk amut loo xam ne luñ ca settee la rek jàppal ne kullu lépp lay yóbbaale ñaari aay bi nga xam ne léeg-léeg moom lañuy faral di jëfandikoo jàpp ne eh, day tegtale ne kullu mënees na koo indi ba noppi fekk lépp du tegtale lépp maanaam loola eh, njuumte ci aw déggin dafa am ñaari mbir yoo xam ne faw jàngkat yi xàmmee ko mooy settee ci dara loo xam ne daa ñëw généraliser ñu war caa génne benn exception su dee am ci alquranul karim wala ci kàllaam ak arab sax wala ci sunna ñu xam ne loolu ñaari anam la am am na settee goo xam ne texte mooy ñëw defaat ko walla settee goo xam ne xelum doomu aadama ci boppam mooy xam ne lii du lépp maanaam settee ga xel da koy def ah bépp texte boo ñëw nag boo xam ne ñëw na nekk ci alxuraanul karim wala mu nekk ci sunna te fekk beneenub texte ñëwul ne ah léekat dañ koo généraliser woon waaye xam leen ne nangam bokku ci wala xel mu mucc ñëw ne lekk dañ ko généraliser woon waaye xam leen ne euh, lii bokk ci su boobaa xamal ne texte boobee day des kullu joojee day des di tegtale la muy tegtale rek muy lépp euh, kullu man alayha faan borom bi tabaraka wa taala nee na lépp lu nekk ci kaw suuf day jeex ba mu des sunu borom tabaraka wa taala kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika dul jalaali wal ikram lépp lu nekk ci kaw suuf day jeex kenn ku nekk xam na ne lépp jooju bàyyiwul dara wax na ne suñ borom tabaraka wa taala rek moo fiy des moo fi jëkkoon moo fi mujj kon lépp lu nekk ci kaw suuf day jeex foofu kull jooju amul istisna maanaam dara setteewuñ ko ci loo xam ne du fi des loo xam ne du du day jeex bi borom bi tabaraka wa di wax ci ngelaw li nga xam ne moo faagaagaloon euh, noon yooyee wax ne riixun fiha adabun alim tudammiru kulla cheyin bi amri rabbiha fa asbaxu laa yura illa masaakinuhum ne ngelaw la ba mu dikkee dafa alag lépp lan moo fa des mu ne seeni kër dafa bàyyi maanaam dafa alag nit ñi kon bàyyi fa kër yi waaye exception boobu nga xam ne moo fa bàyyi kër ya nuñ ko xame mooy alxuraan ci boppam moo nu ko wax waaye su fekkoon ne dafa ne rek tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha te tegu ci leneen kon dañuy jàpp ni ngelaw la ba mu dikkee lépp la faagaagal ba mu jeex dara desu waaye nag bi mu ne fa asbaxu la yura illa masakinuhum xam nañ ne nit ñi la alak ak xëy na jur ga waaye kër yi tabaxoon wala ñu defaroon ko ngelaw la fa la ko bàyyi kër yi daanuwut ah, léeg-léeg eh, xel ci boppam mooy settee nga xam ne lii xel mu nekk xam na ne nàngam moom génn na ci bokk ci lu mel ne sunu borom tabaraka muy taala fi muy waxee ne kullu nafsin zaiqatul mawt bakkan bu nekk dafay mos dee kenn ku nekk xam na ne loolu ci lim jëm mooy borom bakkan yi nga xam ne yàllaa leen bind waaye sunu borom tabaraka wa taala moom bokku ci am xel mu mucc xam na ne dee jublu wut sunu borom tabaraka wa loolu moom ku jàng ku jàngut ak xel xalaatu ko ñu jàpp ne loolu dana gaar suñu borom tabaraka wa taala ànd ak ne suñu borom tabaraka wa taala xabaar nanu ne moom ci boppam yore na nafs nee na wa yuxadirukum allahu nafsa nee na yàllaa ngi leen di wattandikuloo boppam wala nafsum kon suñu borom tabaraka wa taala jëmale na kàllaamam nafs ci boppam yoo xam ne kon am na nafs waaye nag ba mu ne kullu nafsin zaiqatul mawt xel yépp àndandoo xam nañ ne keneen a tax ñuy wax ku dul sunu borom tabaraka wa taala kon daal kullu bu ñëwee la cay cosaan mooy lépp lay yóbbaale ba des loo xam ne textu alquran daa ñëw wala sunna génne ko ci ñu xam ne loola bokk ca wala xelum doomu aadama mucc ñëw génne ko ci comme misaal moom ñu mujj a joxe nga xam ne kon loola bokk ca kon nag kullu bidaatin la bépp bidaa muy loo xam ne dañ koo sos ci diine te yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam daawuñu ko jaamoo yàlla saa boo ko gisee ci biir diine yonent bi nee na loola dalaala ak réer lay tudd loola nag xel settewu ca dara beneen texte bu nekk ci alxuraan wala ci sunna yi dikkul ne lii kat bidaa la boo xam ne mënees na ko def ci diine waaye bu baax la jazakumullahu xayran cheikhana kii dafay laaj mu ni wax ji borom bi wax ni yamxu llahu ma yashaau wa yuthbit wa indahu ummul kitaab nun koy dégge alhamdulilah amma qawluhu taala yamxu llahu ma yashaau wa yuthbit wa indahu ummul kitaab laaya la joo xam ne am na ñu ko boole ci ay dogalu sunu borom tabaraka wa taala ne dafa jëm ci alqadar am ñoo xam ne it dañ koo dugal rek ci aayay sharia moo tax ku mel ni ne Saïd ibn Jubayr ab Qataada dañu wax ne suñ borom tabaraka wa taala daal lu ko soob ci farata yim farataaloon bu ko neexee mu nasaxal ko mu dindi ko yim yim santaane woon bu ko neexee mu soppi ko loolu la ñuy tudde nasax su ko neexee it mu wuutal fa leneen dindi lu jëkk la comme niñ ko xamee ci buntub nasax Euh, moo tax abdullah ibnu abbas mi nga xam ne mooy tarjumaan al quran radiallahu taala anh wala anhuma day wax ne yamxu llahu ma yashaa wa yuthbit illa rizqa wal ajala wa saadata wa shaqaawa kon kooku ci da cee seentee lu jëm ci buntu dogali sunu borom tabaraka wa taala mu ne yàlla lu ko soob ci wàllu sharia daal euh, mën na ko dana ko dana ko di soppi bu ko neexee mu dindi lii teg falee wala mu dindi lee ne loola doonatul farata ba mu des ñeenti mbir mu ne wërsëg nam ko binde noonu la koy bàyyi ab digg muy li fi nit ki nar a am ci ay at walay fan noonu la koy bàyyi ndax nit ki ku texe lay doon ëllëg wala ku texee di mu ne noona la koy bàyyi loolu mooy tafsiru abdullah ibnu abbas waaye nag teewul am na yeneeni riwaay yuñ jële ci yeneeni saxaaba ku mel ne omar ibnu alxataab radiallahu taala anhu ak abdullah ibnu masud ne ñoom daanañ gis ne yooyu borom bi tabaraka wa e, dogal su ko soobee mën na koo soppi ca nam ko soobee te kenn du ko ko tere moo tax ci tafsirul Baxawi ñëw na ca ne Omar ibn Xataab daana wër Kaaba ga gis nañ ko muy wër Kaaba ga di jooy di wax ne sa boroom su fekkee danga ma bindoon ma bokk ci ñeenar a texe yàlla na nga ma ma bokk ci ñooña su fekkee ne danga ma bindoon ma bokk ci ñeenar a texee di yàlla na nga far la nga bindoon su fekkee ne danga ma bindoon ma bokk ci ñi nga xam ne ñi ñuy jéggal lañ ah yàlla nga ma boole ci ña ñuy jéggal te bañ maa boole ci ña nga dul jéggal daal dina fa innaka tamxu ma tashaa wa wa ndax yow yaay far lu la yaay saxal lu la yaa yore téere ba loolu wax nañ ne Omar ibn al doon na wër Kaaba ga di ko wax la nga ciy jële daal kon mooy laay ci bu fekkee dañoo jàpp ne ci buntu dogalu sunu borom tabaraka wa taala ci la dugal ci la dugg jàppal ne sunu borom dogal na mbir yi lenn lu ci nekkit noppi na ca waaye nag coobareem moom sunu borom tabaraka wa dafa amul frontière ci wàllug loo xam ne moom moo ko dogaloon su ko bëggee soppi mën na koo soppi su ca bëggee yokk mën na caa yokk su ko bëggee dindi it mën na koo dindi loolu kenn amu ci lu ñuy nattable ci wàllu sharia bu dee ci wàllu yim dogaloon nag lu mel ne wërsëg ak euh, ak diir bi fa nit ka di am ak texe ga ak texee di ga loola ànd ak ne riwaaye boobu jëlee nañ ko ci Omar ak Ibnu Mas'ud la gën a dëgër mooy yooya noona lañ koy bàyyi du soppiku ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu wér dafa wax ne boroom bi tabaraka wa taala boo xamee ne nit ki am na ci biiru ndeyam loo xam ne mat na euh, ñeent fukki fan tegaat ci ñeent fukki fan tegaat ci ñeent fukki fan toll ci lu mat ñeenti weer borom bi tabaaraka wa taala dafa yebal malaaka moo xam ne mooy bind léppam wërsëgam ak ab digam ak ndax ku texe di la wala ku texe la wala ku texee di yonente bi alayhi salaatu wasalaam hadis boobu bi mu noppee daf ne li mu ko daaneele mooy kat xalima ya kon fendi na euh, maanaam këyit yañ doon binde mbir ya fendal nañ ko xalima itam jeex nañ maanaam kalima googu kon du du bindaat borom bi tabaraka wa ba mu bindee mbir yi nee na ba mu bindee xalima daf ne ko bindal mu ne ko lu may bind mu ne ko bindal maqaadira kulli shay lépp loo xam ne luñ doon dogal la mu jëm ci wàllu dogalu suñu borom muy wërsëg ak akub euh, akub dig ak texe ak texee di mu ne yooye bu ko xasee bind ba noppi loola noppi na ca kon rufiatil aqlaam yëkkati nañ euh, bindukaay ya muy xalima ya wa jaffati suxuf bindukaay ya nga xam moo doon kayit yi ñu doon bind itam yooyu fendi nañ loolu day fedd la ne yooyu su ko suñ borom tabaraka wa taala dogal loola moom jeex na mu ñëw ci ay xaddis nag ñu ne nàngam day taxa gudd fan comme jokku bokk ak lenn ci jëf yu baax yi Eh, gudd fan googu ni ko boroom xam-xam yi firee moo di ne jeexit wa fay des te nekk jeexit wu rafet jëf ju baax su ko nit ki defee mu des ca doomu aadama yi kooka ku gudd aw fan la am na ñoo xam ne ba ñu gasee ab teen bàyyi ko ci nit ñi léegi mat na téeméeri at ñu di ca naan kookee ko gasoon saa nit ña naanee ca teen ba fàttaliku ko day mel ne ku nekk ci seen biir am na tey ñu bind téere yu boroom xam-xamu lislaam ak seeni ndongo di jariñoo te bañ ko bindeek léegi mat na junniy at mu ëpp ko teewul ñooñu dañuy nekk ci suñ biir daanaka mel na ñoo xam ne ñu ngi dund ba léegi lu ñuy seet lu nekk dellu ci seeni xalaat dellu ci seeni mbind xam lañ ca waxoon su ko defee ñooñu day mel ne ñu ngi fi loolu moo tax ñuy wax ne boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi donte dañoo faatu ñoom faatuwuñ waaye ñi nga xam ne dañoo réer donte ñi ngi dundit ñoo ñu faatu ñoo yam kon loola mënees na ko dégg ci anam gu noonu ci gudd fan teewul nag jullit bi moom dana ñaan sunu borom tabaraka wa la mu defal ko tawfiix ndax lenn li ci nekk ci mujj ga ak mujj moo ca am solo nit ko la muy mujje loola mooy la am solo ci moom moo tax di ñaan sa boroog muñ mujj gu rafet ak di ko ñaan gudd fan ndax mën a jaamu yàlla lu bari ak di ko ñaan ak texe te mucc ci ak texe di